tubaab yu bare bare bare bare la pour nëbb dëgg loolu la ci nekk c'est-à-dire vraiment li xew ci li nga xam ne mooy banqaas bi gën a kawe ci suñu justice mais c'est un véritable scandale borom bi nag da cee ànd ak yu dul dëgg ñu wax ñun suñu cas mi nga xam ne dañoo jël Saint-Louis dindi ko alors que agent assermenté ba reconnaître na ko ci procès verbal bi ñu ne non sa mandataire nangu na loolu mais mu ngi ñu toog musu koo nangu dafa àndoon ak un informaticien comme vraiment c'est-à-dire on rajoute du scandale au scandale da ngeen di assumer li ngeen def yéen conseil constitutionnel ak président du conseil constitutionnel effectivement tey Sénégal fait la brisée na toute l'Afrique nga mën a ñëw toog sonal nit ñi ci ay fiche de parrainage waaw bu werante amee werante bu baax dégg nga tubéy ubbi leen maat yi maat yaa ngi ñu teg cest ça a été des décisions politiquement orientées ñun indi leen preuve ne 10 000 de nos parrains ñu ngi woon ci fichier wu 2022 tomb wuñ ci loolu parce que nag problème bi am tey personne ne sait à partir de quel fichier lañ nar a demee élection loolooy wax le fichier électoral a été taillé sur mesure en fonction de la tête du candidat loolu mooy li am loolee dëgg di loolu nag. sénégalais yi ñoo koy fajal seen bopp parce que nag élection mënuñ cee dem ci condition yoo xam ne xamuloo ban fichier la ñu utiliser parce que nag lii commencé nañu xam ne bu ñu ci jógulee du du taxaw bu ñu ci jógulee mobiliser pour am des élections transparentes du taxaw d' abord lii nga xam ne du dëgg am na lu ñu ko war a fajee ñun groupe bi parce que nañu ñoo toog rek di résigner ne voilà ça y est non nous allons nous mobiliser pour que Sénégal dans sa tradition bi ñu am yu jaar yoon kooku il faut que waa conseil constitutionnel xam ko il faut que Macky Sall xam ko il faut que candidat am xam ne sénégalais yi du ñu toog neuf cent mille sénégalais yoo xam ne ñu ngi di fichier bi ñu ne leen naru leen a wote loolu loolu du fi amee loolu mun na nekk léegi nag se seet nu ñu war a def ñun parce que dinañ waxtaan suñu biir pour que démocratie sénégalaise ñu taxawal ko ni ñu ko war a taxawalee li xew xam nañu ko ñu ngi félicité ñi nga ñi xam ne jàll nañu waaye ñii toog fii yëpp góor yi toog fii yëpp danoo liggéey dem wàcc ci parrainage bi ci population yi ñu jox leen confiance ñu ñëw conseil constitutionnel def ko lu def ci lu ko ba noppi nag bind ay bind yoo xam ne mooy bind toppale la yoo xam ne méngoo wala dëgg parce que loolu am yàlla def na man parrainage kenn du ma ko jàpp ki fi taxawal muy Aly Ngouille Ndiaye wala ministre de wax rek fën a fën a tag li nga xam ne mooy li am mooy contrôle de parrainage ba jaarul yoon contrôle de parrainage bi c'était pour éliminer ay candidats waaye nag li nga xam ne mooy ci ëpp solo mooy près de neuf cent mille plus de neuf cent mille ci suñu ay compatriotes bu ñu ci taxawulee bu ñu ci taxawulee du ñu mën a wote loolu nag bu fekkee ne ca lañu dem du ñu dem ci élection yoo xam ne ñu élection yu calme lay doon déedéet dafa laaj ñun ñëpp ñu mobiliser doon benn say ñu ñëpp ñu doon benn say euh, démocratie fekk si ñu fexe na ba fa ñu war a jëm tous ces torts là ñu fexe nag ba ñu mën koo redresser ba ñu mën a dem ci élection yoo xam ne élection yu jaar yoon lay doon élection yu transparente lay doon pour que ñu changer Sénégal ñi fi toog ñëpp tey am na aussi loo xam ne bokk nañ li nga xam ne moom bokk nañ ko mooy lii fi ne dafa fee war loolu lu leer la fii ñi fi toog ñëpp c'est pour que le candidat de la continuité on puisse s'en débarrasser dès le premier tour loolu moom ñun ñëpp fii d'accord dinañu am taxawaay bi nga xam ne moom la war moom moo ñu war dinañu waxtaan suñu biir ba li nga xam ne mooy li war a am mooy ñu dem ci élection yoo xam ne du doon lu ñuy sàcc wala lu ñuy tricher ni ñu ko defee ba ci e constitutionnel e cinquante soo may wax ak yéen lii xew jaarul yoon ça n'a rien à voir avec la loi xam nañu ko jël ay parrainage yu jàmbur euh, éliminer ko sans boo leen laajee ci seen décision mënuñ cee doon ay xew jàmbur ngeen ne voilà mënuñu ko ubbi te ngeen ubbi woon ko tam leen koy contrôler mais loolu c'est évident peuple sénégalais yépp ne lii ñu def ñiy toog fii jaarul yoon amuñu problème bu parrainage bi fi toog problème bu jaay doole la ñu am problème bu jaay am loolu nag ñun ñoo koy fajal suñu bopp en tant que sénégalais en tant wu ba le 25 février ñu am élection yoo xam ne ci yoon lay tegu ndax nag ndax nag. lu commencé nii bu ñu ci jógulee du mujj fu neex du mujj fu baax parce que je ne vois pas lu tax sa vont s'arrêter en si bon chemin pourquoi pourquoi s'arrêteront-ils en si bon chemin bu ñu ci taxawulee kon loolu c'est un appel aux Sénégalais aux jeunes aux femmes aux moins jeunes suñu démocratie bii nga xam ne ni ko docteur Cheikh Tidiane Gadio waxee dañu ko nawoon nit ñi di ñu admirer mu mujjee fii kooku du ñu ko nangu du ñu ko nangu tey du ñu ko nangu ëllëg loolu nag moom dafa laaj taxawaay bu fekkee ne lii ñu éliminé dañ ko defoon pour décourager leen dañuy wax président Macky Sall mooy tey nga ñu gën a motivé tey dañuy nar a gën a taxaw ci sunu wetu askan pour que ñu dem vers un changement pour que lii mu su fekk ñu mu jëlee fii à jamais plus jamais ça plus jamais des élections dans de telles conditions donc il nous faut absolument le changement jërëjëf. merci madame la ministre donc dégg ngeen li mu wax c' est clair et net lii waruñu ko nangu dañu ko nangu tey en tant que sénégalais nous demandons à tous les sénégalais où qu'ils soient de prendre leurs responsabilités ça y va de l' avenir de ce pays réew du caaxaan c' est le moment ñu war a jël suñu responsabilité ñun sénégalais def li la ministre wax sans asalaamaaleykum bonsoir à tous maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp euh, di fekk di jàll suñu xarit euh, Bougane Gueye nga xam ne moo ñu ci gorom bi nga ne moom la ñàkk euh, di ko jàllee Sénégal yëpp parce que ci famille artiste bu mag la bokk di leen wax rek ne fii taxawal nañ fi am même waxtaan bi li ñu xalaatoon rek moom la ñu confirmé en réalité nous sommes en face d'un coup d'état électronique c'est un coup d'État électronique qui a été exécuté par un conseil constitutionnel. Un conseil constitutionnel qui est censé faire du droit, mais qui a essayé de faire l'informatique et qui s'est montré très très faible dans le domaine de l'informatique. Donc un coup d'État électronique fait par des juristes qui ont voulu être des informaticiens au service d'un pouvoir finissant qui essaie de s'accrocher à des pour pérenniser son pouvoir. dañu am tey senegal conseil constitutionnel boo xam ne te lii may wax nii bu ma koy wax sax sama yaram dina xaw a daw parce que nag dama jàng droit xam droit am ay xaritu magistrat am ay xaritu avocat am ay xaritu huissier am ay xaritu notaire xam ne bari na ñoom ñoo xam ne dañu intérêt waaye ñun la ñu jàngoon ci droit bu ñu toogee tey di ko xool ci Sénégal dañuy xaw a am gàcc parce que li ñu bëgg a gëmloo mooy conseil constitutionnel bi nga xam ne kenn fal ko parce que loolu il faut ñu koy rappeler ci Sénégal. député yi dañ leen fal askan bi moo leen jox pouvoir président la république dañ ko fal bi moo leen jox pouvoir waaye conseil constitutionnel kenn falu leen mais conseil constitutionnel boobu moom dañu jàpp ne ñoom dañu duñu juum li suñu doon way nit ku dul juum yéen sénégalais yi xam ngeen am ngeen conseil constitutionnel boo xam ne ñoom nee nañ duñu juum duñu mës a juum seen article 1 mooy le conseil constitutionnel ne se trompe jamais article 2 même si le conseil constitutionnel s'est trompé considérez que le conseil constitutionnel ne se trompe jamais maanaam même bu ma demee ba jàpp man conseil constitutionnel damaa juum jàpp leen ne warumaa juum parce que man maa yor doole ci parce que tey li xew ñun ñi fi toog ñëpp ku nekk mën nga wax sa cas personnel jarul ñu si ñëwaat parce que xam ngeen ko mais li nga xam ne moo ñu boole mooy ñu defar dëkk boo xam ne moom la ñuy woowee Sénégal ñu ne dafa am lu ñuy choisir président de la loolu ñu def ko ci biir constitution bi président de la république am ci bàcc conseil constitutionnel am ci bàcc conseil constitutionnel jël pouvoir bu am doole boobu ñu ko jox yëpp jël ko jox ko benn informaticien informaticien boobu je n'ai rien contre lui gëwuma sax ne am na ko xam turam ci Sénégal donc waa ji nga xam ne moo lëmbee Sénégal depuis un mois ci parrainage bi kenn xamul turam kenn xamul il est assermenté ou pas maintenant nag la difficulté du conseil constitutionnel mooy pourquoi ñoom ñuy làqati ci ginnaaw informaticien boobu pour def un travail de déstabilisation politique parce que décision conseil constitutionnel bi fi nekk nii tey boo ko liiree ñii peut-être fit am na ñu koy waxee waaye la wax ci biir décision bi méngoowul ak dëgg parce que conseil constitutionnel dafa war a joxe la réalité des faits maanaam waxe factuellement nan la affaire yi demee mais li ñuy biir décision bi ak ni mu demee bokkul man par exemple sama informaticien ak sama mandataire nga xam ne ci décision bi pour l'histoire bind nañ ci seen tur mais ba ñu gisee ni dossier bi génn na ñu bind ci ay A yu wul jeex mais interrompre nañu leen ne leen lii ngeen projet bi fii bëgg ko saytu bokkul li ñu leen di jox. te li ñu ma tontu ci décision yi moom la ñu tontu candidat yëpp parce que lire naa considérant yëpp ku ci nekk li la conseil constitutionnel jox dafa simple danaan la. puisque bi nga indee sa télé USB dañ ko def ci enveloppe scellé ko bi nga ñëwaatee bi ñu tijji enveloppe boobu nga gis clé bi ñu contrôlé ko donc yow ak sa informaticien ak sa mandataire nangu ngeen ne bi li ci nekkoon moo ci nekk mais c'est rigoureusement inexact parce que ñoom si seen article 3 encore une fois dernière phrase décision 24 novembre 2023 ñoom ñoo bind ne boo ñëwee joxe sa clé USB bu dee clé bi dafa am lu ci yàqu maanaam ay altération dañu koy bind ci procès verbal bi donc procès verbal bi ñu jox ñun ñi fi nekk ñëpp bind ñu ci kenn ne sa clé am na problème donc bu ñu ko seree ba ñëwaat deux wala trois jours après ñu ne la li nga xam ne moo nekk ci biir clé bi dafa am problème te bokk nag li nga ci nekkoon donc ñoom ñoo war a nangu ne ñoom ñoo am problème donc tey affaire bi ce qui se passe mooy ñoom jël nañ seen informaticien defar nañ seen logiciel. kenn xamul li nekk ci biir mais nanguwuñu jël seen responsabilité ne ñoom ñoo tooñ nanguwuñu jël seen responsabilité ne ñoom ñoo jóg ñoom ñoo juum alors que nag ils ont beau être d'éminents juristes mais du set ñooñu ñoo war a déterminer Sénégal kan mooy nekk candidat ak ku dul nekk candidat alors que ñun respecté nañ condition yooyu li nga xam ne moom laa ci mën a teg mooy lii ñu def ñun ñun ñi yooyu les candidats spoliés def ñu ko le 12 defaat ñu ko ci 20 janvier ci beneen décision bu sénégalais yi sàgganee loolu lañ leen di def le 25 euh, février ci beneen décision parce que conseil constitutionnel boobu bu ñu ko fàtte moom moo déterminé tey kan mooy nekk candidat ku dul nekk candidat mais moom mooy déterminé kan moo doon président de la république ak ku dul doon président de la république bu dee nag nii lañ ko nar a doxalee xam leen ne ñoom ñi nga xam ne ñoo war a àtte dinañ ñëw le 25 yëkkati fi benn mbër boo xam ne deful benn effort tojul fenn deful benn liggéey sénégalais yi toppuñu ko ñu yëkkati loxoom ne leen kii mooy seen vainqueur ñun ñëpp nag ñu war a ànd d' accord ne kooku mooy suñu président parce que c' est le conseil constitutionnel qui l'a loolu ñun duñ ko nangu du fi amee gis nga même examen buñ jox exemple yu ndaw rek même examen man nga dem ba ñu joxe résultat examen mais ki def contrôle bu xamee ne daf na erreur humblement dafay accepter ne def na erreur ñun lu ñu dal c'est pas des problèmes philosophiques c'est des problèmes mathématiques dafa mel ni nga nekk ci classe bi nga def devoir ñu ne la 1 plus 1 égale 2 yow nga def sa devoir 1 plus 1 égale 2 ki nga xam ne moo lay corriger peut-être nelawul bu baax wala sonn na gisul na yow 2 nga bind mu defal la ci zéro waaw bu la ci defaree zéro moom ci loi conseil constitutionnel fexe na ne ba ni man ci samay loi man conseil constitutionnel du ma juum wa léegi adduna yëpp gis kii 1 plus 1 égale yow bi ngay contrôlé xam nga ni 1 plus 1 égale 2 la bind mais puisque da nga jàpp ne yow da nga am doole te yaa moom réew mi même 1 plus mu bind da nga koy defal zéro parce que da nga jàpp ne yow doo juum loolu lañ wax ne ñun duñ ko nangu man day Abdourahmane Diouf je ne suis pas dans la logique tey ne damay dem élection dans ces conditions là loolu laa bëgg ñu xam ko on a été spolié de boo ñu compter si ñuy parrainage dafa mat sëkk dañ ñu war a dugalaat ci jeu bi dugal ñu ci game bi ñu dem jongante ku senegal yi fal ñu xam ne moom la ñu fal fi may jël ne ngeen baal ma dernier point CEDEAO ñu ngi fi ne dañuy def observation Union européenne ñu ngi fi ne dañuy def observation Sénégal élection yi du le 25 février dañuy déterminer ki di nekk président de la République nañu jël ñoom seen ay responsabilité gis nañ lu ñu def Mali lu ñu def Côte d'Ivoire lu ñu nous n'accepterons pas et je le dis à l'encontre de la CEDEAO et de l'Union européenne nous n'accepterons pas qu'une victoire technique soit officialisée le soir du février parce que le Conseil constitutionnel a fait un travail en amont parce que les observateurs n'ont pas été capables de voir que nous avons un processus biaisé nous n'abdiquons pas li ma jàpp ñi fi toog ñëpp moom lañ jàpp ba tey fi ñuy wax ak yéen ni 21 janvier nous considérons que nous sommes des candidats loolu nag moom la ñuy wax ak askan bi ñu xool nan lañ koy mën a lijjantee ba ñun ñu bokkaat ci jeu yi bu jaree ñu toog waxtaanaat ñu toog waxtaanaat mais lii nga xam ne noonu lañ ko bëgg a defee dóor ñu mbaj ñu ñu dóor leen coup de poing ñu ñu sànni leen ñu daanu ba pare ñu bëgg a taxaw ne ay républicain lañ dañuy accepter élection yi demee dans ces conditions nous ne l'accepterons pas et nous appelons la population sénégalaise à se mobiliser gars yi da ngeen di rafetal rek di wax neuf cent mille parce que bi ngeen di wax neuf cent mille par exemple man samay seize mille kenn calculé wu ko donc c'est plus d'un million d'électeurs yoo xam ne tey gisuñu leen te un million d'électeurs nag candidat bu ñu ko basculer ci sa vote nga gagné candidat bu ñu ko dindal ci sa vote nga perte Donc ce n'est pas un, candidat, un, un combat seulement des candidats spoliés, c'est le candidat du peuple sénégalais. C'est le candidat, c'est le combat de l'opposition sénégalaise pour que ki nga xam ne dañu ko taaree sur mesure pour nekk suñu président bu ñu accepté mu nekkee comme